jër ngeen jëf di rafetlu ànd bi ak Equivox TV ginnaaw bi ñu leen a nuyoo daleen ak jàmm ci seen bulletin d'information ñu dooree ko gopp ba coronavirus ci 1888 tests yi ñu jot a réalisé tey ñëw ci positif ci 96 yooyu nag am na ci 86 cas contact ak 110 communautaire ak 11 décès. ñuy wéyal rek ba léegi ci wopp ba coronavirus ginnaaw kii di njiitum réew mi di président Macky Sall décrété état d'urgence su fukki fan ak ñaar bu ànd ak couvre-feu ci région bu Dakar ak Thiès sañu koy xaarandi tey rek ngir mu def déclaration am ñeen ci askan wi rek jàpp ne nag mesures yi dina gën a tar rek ba région yi mel ni Diourbel Kaolack Saint-Louis rek dinañ bokk ci couvre-feu boobu. bu ñu sukkandikoo nag ci euh, journal bi di l'observateur mu daal di wax rek euh, ci euh, coronavirus si noonu nag ñu mën a xaarandi tamit ab couvre-feu bu ñu gën a yéegal 18 heures jàpp 5 heures du matin tous les week ñu dem ci lycée Jean Mermoz bu Dakar ñeenti ndongo nag ñoo fa daal di chopé li nga xam ne moo di virus bi buñ sukkandikoo nag ci message bi nga xam ne moom la proviseur bi daal di bind ñi nga xam ne ñoo di parents d'élèves yi ñii di élèves yi ñu ngi jëlee virus bi ci seen congé scolaire boobu nga xam ne amoon nañ ko ci fan yi ñu weesu ba fi ñuy waxee ak yéen nag ndongo yooyu ñu nga fële sous traitement ba tey rek ñuy wéyale xibaar yi ci Equivox TV ñu àddu dem ci disparition jaari Sow étudiante sénégalaise bi nag mi ngi réer le 3 janvier à 20h57 li tax nag ñu wax bile mbir rek mooy dafa amal ab benn discussion moom ak rakkam bu jigéen rakk bi daal di ko naan tu me manques quand rentres à la maison grande sœur kii di jaari Sow daal di ko tontu ne moo mon amour tu me manques aussi loolu nag mooy dernière discussion bi nga xam ne kii di étudiante bi am na ko ak rakkam jigéen ñu dem ak yéen àllub kaañ ña yeewoo ci boobule gox nag ànd ak njàqare ndaxte nag saa yu yeewoo rek ab benn hélicoptère moo leen di tiim di leen këpp rek ay pot yoo xam ne dañ cee sol ay weñ kii di Clédor Sène nag demoon na ci boobu boobule gox lam xam ne rek mooy njortu na ne ñii di base militaire française ba nekk ci aéroport Blaise Diagne ñoo fay def bile mbir ci noonu nag grippe aviaire ba yokkoon fa torop waaye nag coïncidence la wala déet dañu ngi rek investigation yi voilà chers téléspectateurs lii moo fi jotoon ruus tey ci information ñu leen jox di daje rek suba jàmm incha allah.